jërë ngeen jëf mbokki internaute Allô Sénégal ba tey ñu ngi fi nga xamante ne moo di ci buntu cimetière yu armure Yoff ginnaaw ba ñu dencee ki nga xamante ne moom moo di euh, sunu papa sunu lépp di euh, Gaston euh, Mbengue di ko ñaanal sunu borom yërëm ko xaaree ko àjjana waaye mbokk yi di faral di wax ni moom mooy bés bi ku ci nekk war na ci mën a bàyyi xel bu baax a baax allah kulli àll ñëpp a ciy jaar amul da bëri alal amul da néew de fii kenn ku ci nekk bés dina ñëw ñu def ni nga xamante ne moom lañ def Gaston Mbengue ni ki tey waaye tey gis nañ fi mbooloo mu ko mbooloo mi nga xamante ne ñëpp moo xam promoteurs yi anciens lutteurs yi ba ci mbër yi nga xam ne jamono bi ñu ngi amal seen euh, liggéey gis ngeen ki nga xamante ne moom moo di euh, Euh, ay promoteur ak ki nga xamante ne moom moo di reporter ñi nekk ci làmb ji mag ak ndaw góor ak jigéen gis nañ fi tamit ki nga xamante ne moo di Aziz Ndiaye ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Serigne Fallou ni Nicolas pour wan ni ne euh, promoteurs yi ñoom ñëpp benn la ñoom ñëpp ñoom bokk ndey bokk baay ba tey boo xoolee kenn ku ci nekk dangay xool kanamam gis ci naxar ak loolu nga xamante ne lu daw yaram la bés bi bés bu mat a bàyyi xel la muy kër gu mujj ci li nga xamante ne moom moo di ci kaw suuf nekk bés bu daw yaram xoolal kanam goo xol da nga gis naxar boo xamante ne donte ko gëm nañ suñu borom que moo lay jox moo koy jëlaat waaye dañ koy daal di fàttali ko saa su nekk ndax kii dootuñu ko fàtte nee nañu monument la gis ngeen baaboo yi nee na kër gi nga xamante ne moom la njëkk a tabax ci fi nga xamante ne moom di Ouest-Foire Gaston Mbengue moo ko fay boobee jël ay mbër di leen dimbali te yàlla rek tax jël ay mbër di leen ngir ñuy mën teral seeni waajur ñaan boobee rek buñ ko ko ñaanalee jàpp naa ni que suñu xel mën naa dal ci moom bu baax a baax te suñu xel dal na ci moom ndax def lu rek la fi nekkoon muy suñu papa ki nga xamante ne moom moo di Gaston Mbengue gis ngeen ki nga xamante ne moom moo di Alaaji Mbay Mbaye Garmi gis ngeen ko noonu mu génn moom tamit ànd ak li nga xamante ne moom moo di ab tiis ndax lii nag suñu borom moo koy def te kenn ku ci nekk maanaam bés bi eh, di nga ci jaar kon nañu bàyyi xel bu baax a baax gis ngeen Mame Boye Diao mu ngi doon di génn ay ki nga xamante ne moom moo di ànd ak moom gunge ko ci bis bii Mame Boye Diao bu ñëwee moom tamit ay témoignages yu am solo loo def ci ki nga xamante ne moom moo di sunu papa Gaston Mbengue ndax nit nit ñi woon foo ko mosaan fekk mu ngi def lu baax di dimbali doomu aadama yi waaye di leen daal di teg ci li nga xamante ne ci condition yu baax gis ngeen Papis xarañ loo mu ngi noonu n naa leen mbër yu gis mu ngi noonu di saafante bi gis ngeen ancien lutteur Balla Diouf di saafante ak ñi nga xamante ne moom moo di euh, soppeem ak ay xaritam ak ñi nga xamante ne moom di mbokk Gaston Mbengue am na si ñoo xam ne sax seen xol dafa tooy am na ñoo xam ne seen xol fees na ba mënuñoo wax gis ngeen Alboury mu ngi noonu moom tamit Alboury mi nga xamante ne euh, moom daanaka day yëngu ci wàllum làmb jëkkati na ay kàddu aussi yu am solo jébal ki nga xamante ne Boy Niang euh, gis ngeen tamit ki nga xamante ne moo di Boy Niang aussi ñëw nañ fi nee naa leen mbëru làmb yi ñëpp ngeen leen tey ci bés bile ba tey Allô Sénégal moo leen koy toppal di leen toppal gis ngeen Baye Mandione moom it teel na fee ñëw loolu depuis 9h ñëw am na xamante ne principal la ñuy jógee accompagner ko ba mu agsi fi nga xamante ne moom moo di ci cimetière yu Yoff yile nga xamante ne fii lañ ko daal di jébale boromam ba tey Pawlish Mbaye gis nañ ko fi nee naa leen tey artistes yu bëri yoo xamante ne ñii ci làmb la ñu nekk ñii ci li nga xamante ne euh, daf mel ni ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye ak Bousse Ketchup ñoo ànd noonu ba tey ñu daal di accompagner ànd ak ñoom ngir ñu sànn ci ay kàddu def ay témoignages ci ki nga xamante ne moo fi Gaston ñaan rek yàlla yërëm ko xam àjjana ko way ko ci kaw ba. D'accord, va tirer seen téléphone waay. C'est bon. di Balla Gaye 2 doomu Double Less bi lañu gis ci oto bi moom nag nangut wax li ko waral ba léegi kenn xamut mu ànd ki nga xamante ne moo di Aziz Ale Ndiaye mu daal di ñëw mu ngeen gis ci biir oto bi lee ñëpp daal di koy dar ba tey ku nekk xam na relation Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne moom moo di Gaston Mbengue ndax tëggaloon na ko combat ci digganteem ak moom ak ki nga xamante ne moom moo di Baboy ba tey Baboy sax sànq doon na ko amal ci ay kàddu doon na ko yëkkati nee na gi mu njëkk am eh, ci eh, rek ko daal di fayoon kase mu noon ci bëre ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye 2 gis ngeen Balla Gaye 2 ñu noonu ci biir oto bi di daal di dellu fi nga xamante ne moom moo di këram ginnaaw bi mu ñëwee gunge ci papam xaritam di Gaston Mbengue ci këram gu mujj gis ngeen ko moo nekk noonu dem gis nañ fa aussi ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo l'enfant série de parcelle des Assainies gis ngeen ki nga xamante ne moom moo di Boursé Ketchup moom it dal di dinay ñëw ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Aziz Ndiaye di saafante seen i ay xarit seen i ay seen ay am ni jàmm tey lim fàtte nga las des ndax mbooloo mi fii teew takku na lool lool lool ba tey Allô Sénégal di leen toppal ki nga xamante ne moom moo euh, fii daal di ñëw ba tey am na benn réaction dañuy kay daal di ñëw euh, enchaîner. Euh, am na loo xamante ne mënul neex ndax référence bu génn àdduna la boo gisee tey cimetière nu mel nga xam ne rek tiis sa naqar la mais àdduna la ñu xam ne rek ku nekk rek dañ ci jaar incha allah mais yàlla na yéex daal. Mm-hmm. jotuñoo miinante man Makan la la gën a miinanteel mais di wax ne suñu papa la comme nu mu nekkee papaay Makan ndax mhm. euh, première journée bu ma tëgg mhm. daf ma woo téléphone di ma conseiller mhm. te yàlla xam na ne xaw ma sax ku ma doon woo daf ma woo kii moom mu yónnee ma message ne man la sa papa Gaston ma wuyu ko loolu ñàkk ki ñaanam la ak bëgg sport bëgg làmb li ma wax sànq rek laay waxaat dee la njëkk a bind ko dund allazi xalaxal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wax wal ku ci nekk rek nañu rafetal lépp ci àdduna xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dara jaru fi ñaawoo dara jaru fi salteel on est de la même famille réew mi ñu ñëpp ko bokk nañ rafetal les relation rek moo am solo génn àdduna Gaston démb ci plateau TFM la ma fekk. ñu annoncé ñu ko foofu. ci lañ jógee automatiquement maa maa ngi toog ak franc ak ñi ñu jug automatiquement dem que kii la quoi surprise ko xaar ne instant boobu noonu dina génn àdduna mais comme lu may wax rek. àdduna la di wax la ñu ko yàlla mu hmm. sa frère. dem fekk ko fa ñaanal ko yàlla rek comme ni ma ko témoigné ñëpp dégg ko rek. ma ne ko am nañu yaakaar ci yow bu baax a baax parce que. dafa am ay doomu jàmbur yoo xam ne jàppale nga leen ñu jàppale seen i waajur jàppale nga leen ñu ñu ñu sàng maraanu sutura képp ku ñu àndal te loolu boo ko suñu borom fayee rek dañu am yaakaar bëri yóbbu seen yaay màkk war naa ko bëri tabax kër dëgg la lépp ci moom la jaar man mii tey sama dund bu amee njëriñ lool dugal na ci loxoom bilaa bilaa noonu la demee moo ñu dëddu noonu la demee ñu seetlu tamit ci mu nekkoon liggéeykat bu mag hmm. ci bésu fet du travail. Mhm. premier mai. Mhm. ci bësu CLAF bi nga xam ne moo ko moo ko créer woon. Mhm. mu dëddu ci ci ñaari bés yooyu ban coïncidence ak ban jàngat nga ci am. waaw loolu firnde la rek wane na ne nit bu valeur la nit bu gëm liggéey la rek. comme ni nga ko waxee comme ni nga wax léegi dafa am solo man yàggul yóbbu naa sama papa suma yaay màkka te avance bi ñu ma jox te foofu laa jaree pour yóbbu ko donc loolu dafa am solo bu baax a baax. donc ñun loolu yëpp ñu am tamit. même buñ ci amee bànneex. mu ñu amee yool moom tamit am na ci cër quoi dañuy naan rek suñu borom jox ko cër boobu yàlla xare ko àjjana bu baax maa ngi masawu coono ñëpp jërëjëf Boy Niang jërëjëf wàccee leen micro yi ndànk parce que Gaston li ko waroon ci àdduna def na ko kon liñ koy ñaanal rek mooy fa mu jëm ah suñu boroom teeru ko ci teeru bu gën a rafet amiin waaw te xam naa ne jàmbaar la àdduna moom la ko ci waroon def na ko waaye yàlla moom ay mbiram ah, nii lay demee waaw di sant bu baax di wax benn anecdote bu ndaw euh, Gaston doon na doomu aadama boo xamante ne Alaaji Mansour mbay laa ciy jël comme seede mhm. am na anecdote ñu bare dañ doon séq maag Gaston te xamuñu woon lan la ñuy séq ma ak moom dañu yaakaaroon anonymité la mhm. mais ma wax la tey benn anecdote mhm. Alaaji Mansour mbay mu ngi may dégg ndax moo ko fekkee moom moo toog Gaston woo ma téléphone may tëgg Euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville li ngay sol man maa la ko bëgg a jox. ma ñëw ba ville foofu jour boobu moo tax ma ne la âge Mansour mbay moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla. costume bi ma sol jour boobu muy reyee boobu Gaston moo ma ko jox. kon xam nga bu doon animosité am na. du ma jox yére ma sol ko kon loolu anecdote bu ma doon wax la. di gërëm ñépp di sant ñëpp. di wax ne àdduna nii rek la. àdduna moom nii rek la euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom ndax sëñ Touba ba muy dem géej di sànni der ba nit ñi géej lañu gis waaye sëñ Touba yàlla la gis moo tax ba mu lalee der ba mu taxaw kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay eh, di ñaanal ñëpp jàmm tawfeex sutura xéewal boo amee kaddu yooyu dénk njabootu Gaston waaye boo mhm. amee kaddu yooyu dénk ki nga xam ni moom la jox lenge muy makkan boo amee kaddu yooyu dénkee njaboot yan kàddu la non kàddu yi moom lenn rek la eh, seen baay am na empreinte mu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom mhm. ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue laa fii Sénégal mhm. am naa yaakaar na nit ñi dina am cër bu ñu la jox perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def. Mhm. ndax loolu lu am solo la. Mhm. Euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla Makane gis naa ne jàmbaar la ndax mu mhm. ngi béy waaram. ñun ñëpp nañ ko jàppale. lii rek encore une fois. day wane ne. Euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi la ma ko waxoon ci déju Pape Aziz Ndiaye rek mm. ne ko bu la dara jaral xëccoo bu la mm. dara jaral dara mm. ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn ndax tey boo jaakaarloog gaynde gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi waaye boo jaakaarloog suñu borom ne gaynde yii yàlla la boo ko fa tegee rek da ngay gis ne yàlla la yàlla mooy ñëwal boppam daal di la aar daal di la suturaal mais boo gisee gaynde nag mu bàyyi la ak gaynde mm-hmm. gaynde yi defanteeg yow mm-hmm. waaye gis fa yàlla rek mm-hmm. incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf yooyu waaye ku leen jël réew bi